ziyaara Algérie 2024 Mamp Oudiaguy toolu ki 69 di woy ba tey di amal seenu tournée gannaaw Tazouze jaar nañ dëkk bi ñuy wax Halia ñu ngi wutali Abu Jonqom Algérie nekk dëkk bi nga xam ni fa la Seydina Cheikh ganee àdduna ci dëkk bi ñuy wax Aynu Maadi li ni sax a tax ñuy amal ziyaara bi at bu jot taalibe yi di bàyyeekoo fépp ci àdduna bi ngir teewee mbir moomule ci njàppandalu Seydil Abdul Muttalib At Tijaani daal di nañ fay egsi ñu daal di ñuy dalal dalal bu mucc ayib suñu envoyé spécial Abdou Fatima mañu fa teewaloon indi na ci ay leeral. asalaamaaleykum Alxaaji Mor gis nga ñu ngi fii ci Abi Samaoun Abi Samaoun nag euh, tabaarakallaahu dafa nekk pàcc bu ama am solo gis nga teeru bi tabaarakallaahu surafaaw yi kilifa yëpp génn nañu di teeru ganu Seydina Cheikh radiyallaahu taala anhu fii nag fii la Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif daje woon ak maamam sallallahu alayhi wa sallam. yaqazatan laa manaaman daje boo xam ne nag tabaarakallaahu du ay gént du ay nelaw fa tabaarakallaahu keroog la ko maamam wax ne lépp loo yoroon teg ko ci suuf Cheikh Seydil Haaji Malick radiyallaahu anhu wax na ca lu am solo ci faakihatu tulaab fatruk jamia ma bihi asa ata tafuuza kullama waxitta kon mbokk yi ñu yem tuuti rek tabaarakallaahu ànd ak pèlerin yi ñu ngi doon di dugg fa tabaarakallaahu nees tuut incha allahu taala lépp lu fi mata wone rek wala taaliba yi di ko bànneexoo incha allahu taala dañ leen ko woon fii ci Aïnou Mady TV asalaamaaleykum asalaamaaleykum imam sek fi moy abi samon yaangi ton am lo ni don defal tarikh ci auto bi tabarakallah eh, mu nek parti nak bu am am solo ci tarixa ya lan nga ñu ci baxé rek tabarakallah bala ngeen di ag di nopolu ci bir <laughs> léegi moy place ba ngeen ak serigne ci jamm alhamdullilah eh, fi moy baytul khalo bi mm-hmm. gisone ni ko bindé ni mm-hmm. fii la sëñ na sax gise woon ak maam. fii la lan lan la ko maamam wax imaam. man maay nag la ko joxee tariixa bi xaayee ko bépp dam bàyyi yooyu nag mu doon koy jox tarixa bi mm-hmm. jox ko ci ndigal waaw fi mu nekk foofu la kooku mm-hmm. mooy baytul xalwa la seen Cheikh daan dugge xalwa di weetal borom subhanahu wa taala fii la kay euh, saal bi mooy mm-hmm. saal bi ci bunt bi waaye bi ci kanam ni fi jigéen ñi la dugg noonu foofu la dam yi daan toog déedéet daan toog. maam dam moom moom moo nekk. beneen saal bi ci kanam fi tolloog yow fii fii la mooy bëtul mbokk yi mi ngi noonu fii mooy baytu xalwa bi nga xam ni Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu fi doon wéetale boromam ànd ak taalibeem bi nga xamante ni. تبارك الله la ñuy wax محمد euh, Mouhamed التازي arabi attazi رضي الله تعالى عنه أرزني أرثني يا ملاذي فإنني على بابك الأعلى على على بابك الأعلى أنا اخترك إبي السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين بقي الحمد لله في نيتوك في لسيدنا الشيخ دفعون خلوان بي تياغ في لول دون سلال دون تربيهو تي ديغنتم اكبرمام غير ختالي جامي يب ناخ وراسه كيغا خامني موم لا جليه صلى الله عليه وسلم ndax maqaama ak jataay bi nga xam ne moom la ko sunu borom jox dafa fekk ne maqaamab nubuwa jeex na waaye su duhutoon loolu maqaama ba maqaama nubuwa lañ koy tuddee waaye jeex na kon il faut ñu xutal ko tur te boobu benn rekk la te diggante ak yonentu bi sallallahu alayhi diire na looloo tax xeeti daraja yi nga xam ne xutba awliyaaw yi am nañ ko yu bari la am na maqaama bu ñuy wax ay aw al awtaat am na ñu ñuy wax xawsaaniya xawsu am na ay nujabaa am na ñu ñuy wax nuqabaa am na xutbu ñoo ñëpp nag xutbu mooy seen chef waaye ni mu demee masalan boo jàppee ne hadratul ilahiya mooy appareil bii waxtu wu nekk am na ñeenti lawtaat yu ko séq gis ngeen ni ko ñeenti ñuy séqi am na ñeenti lawtaat ñu benn seconde benn tiers place bi du ko widd ci sunu borom doxalinam nguuri adduna yi ci lañ dippee former seeni gouvernement am na ñu ñuy wax nu jabaa waxtu wu nekk daañ mat 40 ñoom ñi ngi ñi ngi am na ñu wax 40 am na ñu wax juróom-ñaar waaye lu mu ci mënta doon ñoom ñoo topp ci gannaaw euh, aywa bu dalaaw yi ñoo léegi nag ñeent ñele bu fi kenn jógee rek kenn ci juróom-ñaar yi moo koy remplacé juróom-ñaar yooyu bu fi kenn jógee rapidement la ñuy yokk dara darajaab kenn ci 40 yi mu jël place kenn ci ka bu ko defee ñi dem jëli kenn ci trois cent ya mooy nujabaa uy ñooy nekk trois cent waxtu wu nekk nag ñi ngi tax ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ci ngorook ak sunu borom bi ñoom la ñuy tudde ay nujabaa kenn ca ñooña mooy ñëw remplacer kenn ci quarante yi nga xam ne benn place du widd su ko defee saalixoona yi ñoo gën a bari kenn mënta xam nuñ toll saalixoona ya nag ka ca gënoon a sellal sunu borom baaxee ko yokkal ko darajaam yóbbu ko ci dara ci maqaama nu jabaaw su ko defee nii la affaire biy demee xutbu bi nag moom moo nekk ci digg bi waxtu nekk benn lay doon ci jamono waaye yooyu yëpp am na maqaam ndax wax naa fi léegi ci oto bi ne Seex na Tijaan yi ay sëriñam wax nañ ko ne biñ ko laajee loo bëgg mu ne leen xutbaaniyatul usma ñu ne ko xend aksar min zalik te fi mu nekk ne nu boo fi des ci liñ xam nu boo am jeex na ñu ne ko am nga lu gën a màgg maqaama xutbaaniyatul usma aywa biñ demee nag de dem de dem de dem de dem de dem de dem ba jamono incha allah subaak jàmm wala gannaaw subaak jàmm ci guddi googu ci la jotoon maqaama xutbaaniyatul usma وفي المحرم خدا خوثا رسيد خليفة عن المهيمن المجيد لولو نينكو مينكو امي ci guddik dimaas fukki fan ak ñaar ci weeru tamxarit nit min bahdi shahrin wa layaalin irtaqa ila maqaamihi al-azizi al-multaqa maqaamihi al-maktuumi an kulli al-wara foofu rek laa soxla woon maqaamu xutbaaniyatu xutbul maktoom maxtoom bi kooku benn lay doon tane maktoom bi moom xel nga ko xalaatu toon maxtoom bi xëy na tudd nañ ko ku nekk yaakaar na ne moom nga waaye maktoom bi moom kenn xel xàggu ca kooku moom ca gannaaw xel la ko sunu borom làq looloo tax ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sunu borom bi tabaraka wa taala xamul dayo maqaama al maktoom loolu nag ci fukki fan ak juróom-ñett la ko jot ci safar kon ña nga xam ne gisoon xool nañ maqaamaay Cheikh Tidiane de xool maqaamaay awliyaaw yi ñi xool ba gis ne àgg ci xutbul ma ci xut euh, xutbaaniyatul usma ñi gis ne romb na ko dem lool waaye nag fu jëm xamuñu ko parce que euh, maqaama ba amagul turam génnagul fen

صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alxaaji Moor gis nga jotaay bu am solo bi muy jotaayu ziyaara fii ci baytu xalwa bi nga xam ne mooy baytu xalwa Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu nga xam ni boo gisee bant bi ñu la won buum la daan jël takk ci baatam ngir su bañé nelaw rek tabarakallahu bom bi xoj ko mu yewu ngir mu continuer deyaay ak boromam ndax jaamu yàlla guddi yombul wa min al layli fatahajjat bihi nafilatan nafilatan lak asa an yabasaka rabbuka maqaman mahmudan mom nak fi lako ko yenen tibi sallallahu alayhi wasallam takale takkale ko ana murabbika وانت ولدي حقا وشيخك الأبر كل مسندي مايسا باي مايسا مام مايسا سرين فترك جميع ما به أعزتا تقل لب تشوف لو مصن يور ما جحل الله خمني مسلمك جح كن تسندق لب سنو بورا سما بورام سبحانه وتعالى كوكو مويسا سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه waye da fay wonane rek seydina cheikh jaamu katu yalla lawone seydina cheikh bo deglo li mam haj Mansour don wax moy jaamu yàlla guddi huwa dëhbu salihin aya rijal allah hubu laysa hayr allah rabbu lan tanalu birra hatta tunfihu mimma tuhibbu nit limu gëna gën soxla guddi moy nelaw te gor yàlla yi nag nelaw yi lañ doon jël diko ko jaayante ak seen borom subhanahu wa taala kon yal nañu yàlla fayal Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yal nañu yàlla boole ci dëgg-dëgg njabootam à travers Aynou Mady TV Malikia TV képp ku seetaan image yi rek yal na ko yàlla def sa fajuk aajo waaye yàlla baaxee bépp taalibe seex mu ñëw fi barkeelu ci xaddara bi barkeelu ci bërëb bi comme ni ñu ko defee ci ndigalu Sérif Abdul Mutalib at Tidiane yal na ko yàlla may gudd fan yàlla may ko wér ndax lii fa tabaarakallaahu liggéey bu bu rëy la. liggéey bu tedd la boo xam ni mu ngi koy jagleel maamam Cheikh Sidi Ahmed Tidiane waaye di ko jagleel taalibe maamam yi fa tabaarakallaahu yàlla nañu ko yàlla fayal eh, Aynou Mady TV incha allahu taala ngeen topp ñu rek lépp lu xew fii rek ci Algérie rawatina fii ci Abi Samoun nga xam ni dafa nekk rendez-vous bu am solo entre Seydouna Mouhamed ak Cheikh Sidi Ahmed Tidiane eh, dañuy dolli di ñaanal nag ku mel ni Alxaaji Ibrahima Sakho yàlla na yàlla yokk leeram ndax bàyyi bu saaxu toog na ci ay tànt fanaan na ci ay guddi ba tey dañu xibaar ak dañu jàngal jaar-jaaru Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ku mel ni imaam abib Sarr yàlla nañu ko yàlla fayal jaar toog na ci ay tànt ak ay guddi ba tey di ñu nettali jaar-jaar Cheikh Ahmed Tidiane waaye ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey alaana ana di ñu fàttali nekk ci télévision yi. mën naa tudd rek ku mel ne Ahmed Sa Ahmed Fall Ahmed Fall yàlla nañu ko yàlla fayal li ñu doon jàngale si téere yëpp moom ku mel ni Ahmed Sarr bu Louga loolu tey jii teg nañ sunu bët yaqazatan fa tabarakallahu laa mën a man kon nag yàlla ñu yàlla fayal mag ñi yàlla nañu yàlla fayal Serif Abdul Muttalib at Tijaani yàlla na ko yàlla may gudd fan may ko wér yàlla rof ko kattan ba liggéey bi daj àddina bépp taaliba sax fu mu mën a nekk ci àddina rek nga ñëw fii ci Abu Samaon ñëw fii ci baytu xalwa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane eh, ziyaare si ko fa tabarakallahu ngeen ànd ak Aynu Madi TV Malikia TV leeru Maodo assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu شيخنا التيجان ومن ينتمي عهدا إلى الشيخ أحمد تجاني من قادل تجاني من قادل أنا ملي جنتي asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Aynou Mady TV Malikia TV leeru Maodo ni ñu leen ko xamoon rek ñu ngi ci ziyaara bi ba tey tey nag ñu ngi ci pàcc bu ama am solo boo xam ne tabaarakallahu ya képp kuy taalibe Cheikh rek daf lay intéressé muy abi samaun nga xam ni fi la ñu wax ni seydina cheikh radiallahu anhu fi la ko yàlla wone maamam yaqazatan la manaman eh, ñu ànd ak nag cheikh ahmad tidiane sàll bi nga xam ni tabaarakallahu moom it bokk na ci suñu ay gidd di ñu baaxee di ñu wan di ñu jàngal bërëb yi nga xamante ni bépp taalibe sare bëgg nga xam li fa xew moo tax cheikh abdul muttalib sàkku Aynouma TV ñëw teew ngir won ko àddina bi yëpp sëriñ cheikh bërëb bi mooy ban bërëb ci abi samhun السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واو نيجي شي جامع العتيق جامع العتيق بي في سيدنا شهر رضي الله تعالى عنه في مورن جمعة جيغا خمينة في لا دون جوخي درس دي في جانغالي نو في جيتي ايتام لله رب العالمين ني يالا مو دوغ سي خالوام با خمينة خامي واخ نني فوكي اداك yeneen ñetti at yi ci challaala bi nga xamee ne boo xoolee dëkk bi njëkk jot balaa ñu agsi fii challaala boobu la ak beneen challaala bi nga xam ne buñ jógee fii danañ fa jaar ñaari challaala yooyu ak diwaan bi la doon benn benn dox boo déggee challaala xarbiya challaala gibliya amaa fi nag moom mooy ab sama samaxun waa fi ñu taxaw ni itam mooy jumaa ji nga xamee ne fi la doon jàngale doon fi joxee ay dars macha allah doon fi jiite incha allah فتبارك الله لوتي واي سيتان رك يالنا لوكو يالا ديفال فاجوك اديو تي برك سيدي احمد التيجان شيخ رضي الله عنه شيخنا التيجان ومن ينتمي عهدا الى الشيخ احمد تجاني من قادل تجاني من قادل انا ملي جنتي هذا الفاتح سين porte بارول ñëwaat na ci في بلد أبي سمغون بلد الفتح المبارك الذي مكث فيه الشيخ التجاني 17 سنة وفتح الله سبحانه وتعالى في السنة الأولى التي أتى فيها إلى أبي سمغون بأن رأى جده صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما ونحن نقف ووراءنا في جهة قلوبنا القصر الأسعد الذي وقع فيه هذا الفتح ومحل الخلوة المباركة في ونس يعني نرجو من الله ونامل منه سبحانه وتعالى ان تكون هناك زيارات متكرره من ساداتنا الافارقه من جميع الدول مرحبا بهم جميعا وهذه يعني المبادرات التي يقودها الشريف سيدي عبد المطلب يعني مبادرات يعني جيده من تاخي الاخوان وزياراتهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي للمتزاورين في والمتحابين في والمتباذلين في سأل الله تعالى أن يديم هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات ويبارك في دولنا جميعا وأن يطرح علينا الأمن إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا jëmale ko ci délégation waaye nag muy ñaanal Seydina Seydi Abdul Mutalib Tijaani ki nga xam ne moo jiite liggéey bi yëpp ki nga xam ne moo taxaw liggéey bi waaye nag ñuy am euh, mbégte lool ak kontaante ci ziar bi nekk ziar bi nga xam ne yokkute ci ñoom mbégte la ci ñoom ngëne la ci ñoom comme ni ko yonent bi sallallahu daan waxee ne euh, ci xadis xadis bi nga xam ne suñu borom moo ko wax subhanahu wa taala ne Euh, sama cofeel de dëggu na ci ñi nga xam ne dañoo soppante te yàlla tax ñuy ziyaarante te yàlla tax ñuy weccante sottante ay xalaat te yàlla tax nee na kon nag loolu mu ngi koy sante suñu borom bu baax a baax ndéem suñu borom defal nañu loolu ndax ñëwuñ ci pour commerce ñëwuñ ci pour benn intérêt waaye nag li ñu fi tax a ñëw mooy soppante te yàlla tax ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ngir Mawlana Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu waaye ne moo taxaw liggéey bi nee na bâtiment bi nga xam ne mu ngi suñu ginnaaw waaye nag ci dëgg-dëgg suñu biir xol lañ ko def dafa mel ni ñu ngi jàkkaarloog moom fu ñu toll nee na bâtiment bi mooy bâtiment bi nga xam ne ci la Mawlana Seydi Ahmada Tidiane duggoon xalwa ci la am fatfu bu ba euh, première année bi mu fi ñëw waaye am na fi 17 ans fukki at ak juróom-ñaar am na ko fi waaye nag at bi fi njëkk a ci la am fatfu bi giseeg maamam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jox ko tarixa tarixa bi tarixa bi nga xam ne moom moo waral lii yëpp ay nit ñi nga xam ne dañoo bàyyi ko fu sori ñii Sénégal ñii Mauritanie ñii Mali ñii Gambie ñii France daal di ànd doon benn ñëw fii di ziara bërëb bu sell bi kon nag moom itam moom di Seydi Youssouf Al Fadli ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax fekkoon nañ ko fi daaw mu teral ñu comme ni ñu mu teralee nii lii itam si waajuram la ko jëlee Seydi Mouhamed Boun Ramadan suñu wayjuri don nañ ko fekk ñu ci melni ñom Cheikh Sall itam ñom ñeneen ma sék ñom ñeneen ak ñeneen daan daan nañ ko fekk mu don gor gu baax gor gi nga xamne suñ fi ñëwé duñu bëgg sax dem ngir dalal gim leen ni dalal ak waxtaan yu am solo ak xam-xam bu am solo bu muy def ci ñom mom mi tay ji yalla def mu don ko mom tam ñu koy ñaanal yalla yalla guddal fanam Yalla yalla may ko wër ak katan ci daraaje yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi yag ñëw di ziar diko fekk mom tam ñaanal la mbolom mi yëpp yàlla na eh, yàlla nañ fi yag ñëw di ziar and ak mbégte and ak wër and ak yokku ci daraaje yonent bi sallallahu alayhi wasallam wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barakaatu.